mbégte ci xibaar bi nga xam ni dafa soxal wàllu làmb mooy li nga xam ni jooy nañ ko lu yàgg di ko sàkku tamit muy promoteur muy mbër amateur woykat ci wàllu làmb rawatina sportif yi ñu bëri doon nañu sàkku ñi nga xaman ki nga xamante ni mooy le grand promoteur Petit mbay bi dem réew France ay at a wan ginnaaw làmb ji euh, ba tax na rek ñu doon sàkku promoteur yëpp ñu dellu si waat rawatina ñu mag ñi waaye tey ci xibaar bi nga xam ni am nañ ko léegi nii mu tàng jër Gaston mbeng moom Gaston Xaali Mbengue sànq jot na gisanteeg ca palais présidentiel euh, président Macky Sall Gaston la ko a dem rek mooy waxtaan ak président Macky Sall ngir ñu daal di mën a jégal moom mi Alioune Petit Mbaye mu dellu si waat fii ci biir réew mi gannaaw ca biir palais moom président de la république ci mbaaxam nee na Gaston Mbengue jox naa la ndigal waxal kii di Aline pëti mbay mu dellusiwaat ci réewam di Sénégal ndaxte dañu ko soxla te it mu rax si dolli moom président de la république ki ko porté woon plainte moom Petit Mbaye bu dellusiwaatee bu ñu yëkkatiwaatee bile dossier moom dina jël xaalis. fayal ko mu nekk ci jàmm dellu si ci làmb ji suqali ko waat kan Gaston Xaali Mbeng moom ak président de la république li ñu def muy lu rafet muy tëli askanu làmb soxlaw ak lu làmb yépp yàgg koo jooy kon Aline Petit Mbaye yàgg nañoo jooy sa dellu si Gaston Xaali Mbeng ak président de la république si ndigalam nee na nga dellu si kon boog li ñuy xaar yàggatul dara